وتلو أفعلنسبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما nee na ak afil moom qabla ma failin majrurin bi baain wan si bannahu nasab ko nag moom lisim jëy topp wan si wan si dégg nga wan si banna nasabal tilwa afala lisim ja topp ci afala nasab ko lii nag listiqaal la maanaam in sib tilwa afala in si bannahu damir jee tax mënoo ni in si bannahu moo nasab tilwa kon nag baabu listiqaal la woon rek niki saydan darabtuhu ah misaalu seen ñoom ñaar afala ji nga ni maa aw faa xalilayna ay sunu ñaari xarit yi cay waay yem naa seen matal kóllëre gi ñu matal kóllëre maa aw faahuma maa aw faa xalilayna yem naa seen matal kóllëre bu ñaareel bi asdiq bihima ay ñoo ko dëggu yem naa seen dëggu gi su ko defee kon bihima ji waroon doon faayil nañu ko jarak baa ngir mu mel ni fadla la mel ni tey maratu bi say maanaam maratu bi say din mel ni bi say din joojee na mu ajoo ci maratu nga xam ne palaasu maf on la am fama ah déedéet fama minhu taajjaz stabih in kaana inda alxasfi maanaahu yadih wastabih daganalal xadfa ma taajabta minhu nee na a daganalal xadafu li nga doonu yéemu ci moom soo indee afala wala afil man nga koo xadaf in kaana su nekkee maanaahu yadixu di fés di feeñ indal xadfi fa xadaf ga su fekkee xadaf ko du tee ñu xam maanaama nee na kon dagan na nga xadaf ko wa xadfu ma yuclamu jaisun nu len kooku du fii rek fu mu arab lu mu nar a waxte xamees na ko moom da mën na ko xala lu mu doon bu dee mubtada bu dee xabar kama taqulu zaydun baada man indakuma wa fi jawaabi kayfa zaydun qul danif wa zaydun ustoxni anhu id urif su ko defee bu fekkee ni ci afala la loolu nag ñaare day doon ñaar bu jëkk ba ñu tudd maamolam ayo bu ñaar bu ñaareel ba ñu mën koo xadaf dégg nga léegi tey maa axsana wa akrama zaydan maa axsana zaydan wa akrama nga xadaf mafoolu akrama moom wa akramahu dégg naka noonu asmi bihim wa absir asmi bihim faayilam ñëw na mooy bihim ji ñu jarak baa wa asmi absir bihim wa asmi asmi bihim wa absir wa absir bihim bihim moom andiwuñu ko ndax doy loo nañu bële ara umma amrin damuha qad taxaddara bukaan ala amrin wa ma kaana asbara imrul qays ara umma amrin amru bnu qumay ata saaxibu imril qays ara umma amrin damuha qad taxaddara gis naa muy jooy rangooñam yaa nga partal bukaan ala amrin ngir jooy am wa ma kaana asbara maanaam wa ma asbaraha nga xadaf damir ja kaana zaida la ju nekk mu diggante mubtada mi ak xabaram ma taajubiya mubtada lay doon jumlay asbara jumlay fiil ji barabu rafa lay ne mooy xabaram ma bi maanaa shay'un azimun moom nakira la waaye teewul mën na nekk mubtada ndax bi maanaa ma ngi mel ni ku ni shay'un azimun te nakira soo ko defalee naat xam nga ni loolu dagan na léegi mu nekk mubtada man nga ni rajulun tawilun jaani ma bi maanaa shay'un azimun mubtada la asbara mooy xabaram kaana nag feelu zaida la bu ne ci diggante bi bare na lool lu ñu ko def ko kon asbaraha la waroon doon ñu xadaf ndax dégg nga wa fi kilal fi'layni qidman lazima man'u tasarrufin bi hukmin hutima wa lazima war na man u tasarrufin tereg soppandiku mu nekk jaamit fii kilal fi'layni ci yëpp ci ñaari fi'li taajub maa af'alahu jaamit la siqatu fi'lul maadi lay am du am mudaari du am lamar du am dara akrim bihi melow lamar la tooge doonte melam maanaam du maanaam santaane maanaam maa af'ala rek mooy maanaam af'il waaye moom siixatu lamri boobu mu yorit jaamit la ci du am siixatu maadi du am siixatu mudaari'u déedéet moom la ni walazima war na man u tasarrufin te rek seppandiku fii kilal fi'layni ci ñaari fi'l yëpp bi xukmin ci atte boo xam ne xutima waral nañu ko xidman ci jamono bu njëkk naka jekk ca arab وسقهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاع وغير ذي وصف يضاهي أشعلا وغير سالك سبيل فعلا ban fiyan lañu koy tëgg waxoon nañu ni dana ñëw ndax am na yu mu nangu am na yu mu nanguwul am na yoo xam ne lafsu bala nanguwul am na yoo xam ne maanaama lay bañ moo tax mu ni wasoxuma na nga leen tëgg min di salaasin ci borom ñetti araf ndegam lu xiyaasu nga bëgg a andi nee na sulaasi yu dong lañ ko mën tëgg lu ëpp sulaasi yu kenn du ko ci tëgg moom ñaari tëgg yooyu amma qawluhum ma axsara hada al kalaama te te xani kat fiil bi moom du sulaasi yu ixtasara xumaasi yu la ñaareel baatam mabniyun lil majhuli la woon te looloon bokk na ci yi muy bañ uxtusira al kalaam ñu ni ma axsara al kalaama dégg nañu ko waaye loolu génn na xiyaas nay sulaasi surrifa juy mutasarrif jaamit lu mel ni nicmaa ki biisaa ki lay sa kenn du ko ci def nay mutasarrif ñaari sartango qaabili fadlin na nangu ëpplante de lu nangu gañeente de lañ ko mën a def feel boo xam ne maanaam ñëpp cay mën a yem ni ki faniyal maalu wa maata rajul ndax nit mën na gën a dee morom ma te ñoom ñëpp ñu dee ndax alal yaari alal yu jeex mën nañu ni jiyee gën a jeex kon jëca des xanaa jeexul yooyu laay laa yaqbalu tafaadul feel ju nanguwul tad taf dul kenn mënu caay yéem moo tax kenn du ne maa amaatahu ay nim aka dee ah ay aka dee dafa gën a dee kenn xaabili fadlin ñettango tàmma joo xam ne mat na feel lu taam la naaqis ni ki kaanaa ki bokkam kenn du kenn du ko wax kenn du ne maa ak wanahu qaa'iman dégg nga aywa waaw jaasal ko fi yoon a mun waaw ñoom mën nañu waaye nag dana dikk dana nu bu nu paree ci lii dana nu dikk wax la ni la lu ñu dul yéemu ci moom nag amut waaye day am pexe moo xam ne dana la ko jàngal kon na ngay defe ba yéemu ci li muy dul nangu daal bul indi ma af alahu wala af il bi yaay yaari seex dana la wax pexe ma ngay def nag ndax lu gañeente mën a am yéemant yéem dana ca am mu ni ba tey xayri dintifain te bu muy lu dàq bu muy feelu man fi moom yéemu ci feelul faayil la waaye feel ju ñu dàq moom faf kon saxul kon nan lay ëppee ba ñu di ko yéem loo xam ne faful am niki niki tey maa dara ba saydun waaw da nga naan dara ba saydun nga yéem garaawu dóoram nga ni maa adra ba saydan waaye lam yadrib saydun dóorul kon nooy yéeme dara ba kon doo wax maa adra ba waaye soo ko bëggee yéem négal ba nu àgg ci pexe yi mu lay jox nde ñàkk a dóoru nit gu yàgg mënees na ko yéem su fekkee dafa war a dóor moroomam yëpp di dóor ah waaye boobu nag àggagunu ca moom ndax noo ngi ci sart yi xayri dintifa in bu mu doon boroomuk dàqu bu lu mel ni maa dara baag la kenn du ci ji wa xayri di wasfin yudaahi ashala bu muy boroom sifa soo xam ne afalu lay doon ni ki ashalu shahlaau maanaa ndoxum bëtam xom xonqaayu bët ba dafa jaxasoog melaw zurqa mel melaw zurqa xaw mel ni bëti wundu mel ni mel ni lu wert moo ca ne kooku ay bu bët la kon ashhalu fa huwa shahlaau dégg nga su ko defee kon lu mel ni ahmaru xamraau aswadu ak sawdaau kenn du wax ma abya yadahu ma ashala alwaan yeeg yooyu yëpp ak uyub naka noonu bu muy feel boo xam ni feel bu tegtale ayib la ni ki araj laggi nga ni maa arajahu loolu waruñu ko wax ci madhabul basriyin waaye dana la wax fexe mu ñuy def wa xayra salikin sabila fuila bu mu jaar yoonu fuila bu mu doon feel ju mabniyu lil majhul ni ki duriba déedéet feelul fail nga yéem waaye feel alwaqiu alal maful ni ki duriba zaydun waaw kenn du ko yéem kenn du ne maa adraba saydan déedéet bu sayda dóoree daal nga ne maa adraba say bu ñu ko dóoree doo mën a yox loolu waaye nag dóor yu metti yi ñu ko yéem mën nga koo wax dana wax noo koy def su ko defee ñoom ñii yëpp ñoo bokk nag bi nga xam ne ay sartam dafa dàqu soo ca bëggee yéem benn waxin lay am ci kanam dana leen ko boole ñoom ñëpp a ca yéem loolal la dikk moo ne wa ashdid aw ashadda aw shibhahuma yax yaxlufu taxlufu ma baada la shurut baada shuruti adim wa ashdid ashdid bi kada wa ashdid bi bi bi darbi zaydin ashdid bi ma duriba zaydun wala ashadda ma ashadda ma duriba zaydun fekkee zayd moom maf'ul la dañu ko dóor duriba zaydun nga bëgg caa yéem nil ma ashadda ma duriba zaydun ay dóor ni ñu dóor yi ñu dóor zayd aka tar waaw ndax baatu shidda moom amul ngànt ci loolu moom du feelu naaqis du feel yu ñu dàqoon du te taam la dégg nga te doon mboolem sart yi nga doon wax di dàq bii moom amu ci bool mën nga cee tëgg afil bii mën nga cee tëgg maa afal ashdid bi darbi zaydi wala maa ashadda maa duriba zaydu aw shibhu maa wala yu niroog yooyu ci bépp baat boo xam ni mën na la joxeel maam moom rek dégg nga su fekkee sayda dafa xonq te alwaan yooyu waruñu ko ci def ndax sifaam afalu lay doon su ko defee kon nga ni ma ashadda xumrata zaydin ay xonqaayam beeka tar ashdid bi xumratihi aqbix bi arajihi ma arajahoo doo ko nga ni aqbix bi arajihi ma aqbaxa arajahu nee na lu mel noonu yaxlufu mooy taxlufu mooy remplacer ma ma adima la ñàkk baada shuruti yenn sart yi ba mënuñ ci tëgg ma afal ak afil kon lu mel nga ni indi beneen baat su ko defee nag nan nga koy mottalee wax ja soo ko ca tëggee wa masdarul aadimi baadu yantasib bu ko defee bu dee ma afalahu masdaru aadimi masdaru fiil ja ñàkk sart ba tax ñu ba ko fa diwut bu ñu ko yéemalal kooka yantasibu mooy nasabu baadu gannaaw ga masdar masdaram la ñuy indi masdaru fi'l bi bañ la ñuy indi nasab ko mu nekk maf'ulu fi'l bi nangu bu dee af'il itam kooka tam ba nga tëgg ca af'il ba yeggal masdar mooma nga andeeti ko nga ni kon jaruhu jaru masdar ma bil bàyyi ci baa yajibu day war baada af'il moom daal ñu ni kon ma ngi niroog koo xam ni kii jàmm bu ñu santoon mu bañ ñu ne ko taxawal ma woon la li ma la ma ne daal di dem jëli sangam ba ko moom dikk yan ko la mu do jaam bi doon bañ ni du ko yanu moom moom ñu teg ko waaw ndax mu wan ko ni kon yow maanaam feel bi gàntu na ko ndax benn ci ngànt yi nu doon wax nga indi masdaram mas nga wundi feel bu ko nangu ni ki ashadda ji nu doon wax maanaa dori ba zaydun dóorees na ko gàntu na ku ko ko tëgg ndax li muy feelu mafoon du feelu faay waaye boo ko dee yéem nga ni maa ashadda maa dori ba zaydun maa mi masdariya la ma ngi mel ni yow mu ni maa ashadda dar ba zaydin alwaaqii alayhi dóor yi ko dal moo metti ah ndax maa maa adra ba zaydan soo ko waxee dañuy defe zaydan a dóor te yow dóor yi ñu ko dóor nga yéemu kon cosaan bi moo doon dori ba zaydun kooku moom dara ba dootoo ko ci mën tëgg waaye mën nga ni ma ashadda ma duriba zaydun ay ma ashadda darba alwaaqi ala zaydin maa mi masdariya la kon lu dëgg ah ba tey soo ne ma ashadda darba zaydin ba tey bon day fekk nag loolu moom dafa dafay ihaam moo tax ma ashadda ma duriba mooy gën a feeñ ndax boo ne ma duriba ay الضرب الواقع عليه كوكو دانا لير أما ما أشد ضرب زيد باتاي منون nga ko wax te fekk زيد دور nda loolu moom feel ji ay sarta matit bañul nga waxal ko yo nga nga andi asdid ak ashad def ko ca dafa fekk feel yi sarta matul moom kenn du ci tëgg maa afala lu dëgg waaye yi sarta mat ah bu la neexee def ko nii di su yeboo zeyd moo dóor te nga ni maa ashadda darba zeyd ah wàññiwul dara waaye boobu moom bu la neexee ni ma adraba zaydan wa masdarul aadimi baadu yantasib niki ma aqbaha arajahu araj moo di masdarum arija ya araju arajan وجره جر مصدر با بالباء ci ba يجب day war بعد أفعل ndegam أفعل nga andeet ba tey masdarum fiyal mu bañ mi nga andi masdaram jar koog baa ki aqbih bi arajihi wala ashdid bi xumrati zaydin wala ma ashadda xumrata zaydin wa binnudoor ixkum li gayri ma dukir wala taqis ala alladi minhu uthir waxkum ateel binnudoori ci néew lool néew am li gayri ma dukira ñeel loo gis te mu bokkut ak lii nu tudd nil kooku naadir la laa yuqaasu alayhi ni ki ma axsaral kalaama jooju nu doon misaal waaye wala taqis bul xiyaas mukk nag alalladi ci li nga xam ne usira minhu riwaaya nañu ko ca loola yow bu ca xiyaas ndax loola nekkul ci buntu xiyaas te naxu xiyaas lay doon wa ficlu hada albaabi lan yuqaddama macmuuluhu wa waslahu bihi ilzama wa ficlu hada albaabi funt ficlu buntu taajub lan yuqaddama mafculuhu kenn dootu dawal mafoolam nag dégg nga kenn du dawal mafoolam kon walsam taqool waslahoo jokkam bi ci moom dégg nga day day topp ci moom rek ni ki nga ne ma ahsana zaydan waaye du ñu ni zaydan ma ahsana nag ni nga mën a waxee ni dégg nga maanaa daraba zaydan darabahu daraba amrun zaydan daraba amrun mën nga dawal ma foolu daraba waaye maa adraba nag moom bul ko bul ko dawal kenn du ni zaydan ma ahsana dégg nga wa fi'lu hada al baabi lan yuqaddama maamuluhu dégg nga asdid bihi kenn du dawal failam jooju ñu jarak baa ma ashadda kenn du dawal mafulam boobu ñuy nasab kon da nga was ilsam waslahu bi وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر والجواز والصحيح جوازه من وفصله تقلم ديغنت فعل تعجبك معمولا بظرف ظرف ولا حرف جر مع المجرور مستعمل لني جفندكو لا والخلف دغن قياسا نك wuuteeg dagan wuute ga ci dagan a xiyaas géem déet wuute ba moom istaqarra sax na fi dalika ci loolu am na ñu ni yuqtasaru fihi ala samay am na ñu ni mënees na koo xiyaas te loolu nag mooy moo moo moo wér ni dégg nga ma ngi mel na baytu wa uqimu bi daari lxasmi ma daama xasmuha wa ahri ida xaalat bi an ataxawala dégg nga fasala bi darf uqimu bi daaril xasmi këru fogaru foofa laay sax maadaama xasmuha feek xasmoom ma nga fa wa axri gën naa yel yéem naa gën a yell gi wa axri bi taxawuli wa axri nee nga ay maa maa axraa xam nga fa huwa xariyun bi kada moo bi maanaa xaqiqun wa jadirun ñooyam ku yelloo nangam la jadirun bihi wala xaqiqun bihi wala xarijun bihi xariju nag ca la ahari jóge wa ahari yem naa ak ak cey ak a yell an ataxawala sama wëlbatiku ida xaalat su wëlbatikoo moom xasmu boobat seetat moom daarul xasmu ida ida zarafti dox na diggante ahari ak faayilam ji ñu jarak baate mooy bi an ataxawala xam nga an masdariya la dafa mel da nga ni bi at bi taxawuli ni ma la waxe woon ni ma ahsana ma duriba bi maanaa darba rek bi an ataxawalaat anit masdariya la comme ma ay bi taxawuli wa ahri bi taxawuli ida xaalat mu doxalee zaraf si ida xaalat ida dafa laaf xaalat ida moom zaraf la faslu bi zarfi wala majroor la ni dagan na وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدمة وأحبب أن تكون أن تكون نك أفعل دجنون فاعل مجرور ببا آه واي في بابي داخل على حرف مصدري أن وهو قيا جائز حذفه قياسا دائما آه أن موم المصدرية سنكو جاريك با موغلمو دوغ حرف جار ونكو من جاريك سنجكو حذف dégg nga وما أحنا بذي اللب أ- قليلا يا ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا صبورا أو لا سبيل إلى الصبر mu ngoog ba tey noonu maa axra waaw maa axra ay maa aj dara bi di lubbi ci boroom xel an yuraa sabooran ñu gis ko muy kuy muñ waaye man de mënuma ko la sabila ila sabr menn pexe mu ma muñe moom mënuma ko wa- kon nag taq léegi daal ak zaraf ak maj diggante feel feel taajub jéeg maamulam mustaamalun lu ñuy jëf la ndax dafa ni woon wa- was ilsam waslahu bihi la waxoon moom du dawlu tey duñu leen taqale da nga saxal di ko ca tofal di ko ca jokk waaye nag taqaleem ak darfu jar ak yooyu kooku moom nee na jëfandikoo nañ ah wa ma jara majrahuma fi'laani gayru mutasarrifayni nicma wa bisa rafi'aan ismayni muqaarinay el al aw mudaafayni lima qaaranaha ka nicma uqbal kurama neema ak biisa yaari feeli jaamit lañu bu tagg ak bu ŋañ jaamit lañu nag duñu am dara ci xeeti tasarruf feelu maat ak feelu maat misaalu feelu maat rek la ñu amee waaye mu daare onk la ma rag yooyu duñ ko wa ma jara majrahuma ak la daw seen daw waay la yor seen maanaa ñu di leen jëfandikoo niki lu mel ne habaza fi'laani nee na neema ak biisa fi'laani ñaari fi'al lañu ra xayri mutasarrifayni yu dul soppandiku rafiaani ñu di way rafa ismayni ñaari lisim lisim ya ñuy rafa muqaarinay al yu di yaari àndandoog al lisim ju ca ne al lay àndal seen faayil aw mudaafayni lima qaaranaha wala lisim ja ñuy rafa kat bu yorul al da dañu day doon ju ñu laafal lu yor al niki misaalu laafal lu ñu yor nicma baax na oqbal kuramaa i mujug ñu tedd ña seetal oqbaa ji faayilu nicma amul alwaaya laaf na kurama nicmat jazaa'ul muttaqiina aljanna daarul amaani wal munaa wal minna dégg nga nicma foofa tam su ko defee wa yarfacaani mudmaran yufassiruhu mumayisun ka nicma qawman macsharu wa yarfacaani danañu rafaa nicma ak biisa mudmaran damir muy seen faayil damir joo xam ne yufassiruhu dana ko firi mumayisun ab tamyiz mufassiru damir mooy maa yarjiu ilayhi damir toujours damir la koy firi mooy fa mu dellu boo déggee ci la damir ji dellu bi maanaa loola moo tekki damir ja dégg nga dégg nga ndax damir moom moom moom moom moom moom ni tur wi mel la mel maanaama dafay nëbbu nag soo nee moom suñu xa su suñu déggul woon koo jëkk a tudd ak yooyu duñu xam ki ko li ko firi amut waaw waaye boo ne jaa a zeydun wa huwa te moom nangam ñu xam léegi huwa ji zeydun a ko firi ca la dellu wa yarfaaani mudmaran yufassiruhu mumayis ni ki nga ni neema baax na mu nëbb na damir xaw mën ci aw gaay xaw mu jooju kat moo firi damir jooju macharuhu ñoo xam ni ñooy ab mbooloom ay bokkam maacharuhu maxsuus la doonul faayil ab dafa am lu ñuy wax maxsuusu nicma ak biis ki ñu jagle tagg wi bisa li zalimina badalan déet kooku moom badalan tamyiz la maxsuusam amul dikkul foofu mën na moom kay boo bëggee andi maxsuus nil nicma rajulu zaydun léegi zaydun maxsuusu moom lañ jagle tagg wi ndaxte bi nga ne nicma rajulu da nga mel ne da nga ne góor moo baax yow xeetu góor nga tagg nga dem jagle tagg wi zayd nga ni huwa zaydun muy xabari mubtada mu ñuy xada faw kenn du ko tudd passé woon na ci muqaddima nicma rajulu zaydun amma tamyiz ji nag nga ni nicma nicma rajulan zaydun kon faayil ja doo ko andeeti da nga koy bàyyi rek muy damir mustatir nicma qawman qawman damir ji nicma nabb moo ko firi waaye du ko andil amaa nag ah bu fekkee ne nag da nga leen bëgg a boole moom la ni wa jamu fa wa jamu tamyisin wa failin zahar fihi xilaafun anhumu qad istahar jamu failin boole fail ah jamu tamyis boole tamyis wa faa'ilin zahara ak faa'il ju feeñ bañ a doon damir ju nëbbu niki nicma qawman kooku moom moo bare waaye nag faa'il faa'il ju zahir nga boole ko tamyiz ni ka nicma rajulu rajulan loolu qiya fihi xilaafun anhum qad istahara niki nicma alfataatu fataatan hindu law bazalat radda taxiyati nutqan aw bi imaa'i boobu bayte am am na foofu waaye kii nag moom andiwul boobu wa wa taxlibi yoona keet kooku andiwu ko waaye wa taxlibi yoona jarira koy xase faras daq wa taxlibi yoona bisal faxlu faxluhu moo faxlan wa ummuhu moo zalla u min tiiqu boole tamis bisa faxluhum faxlan lismi zahir ji faayilu zahir ji ak tamis nga boole leen niamal fataatu fataatan hindu fataatu mooy faayil nga indi tamisati fataatan wala niamal rajulu rajulan zaydun loolu fiihi xilaafun indahum boo xam ne xad istahara am nañu ko daganal am nañu ko daganal voilà yaani anna nuxaat ixtalafu fi ljamci bayna tamisi walfaili zahir fa manaahu baaduhum لاستغناء الفاعل ظاهر عن التمييز فلا يقال نعم الرجل رجلا زيد وأجازه بعضهم فيه خلاف عندهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل منك وجمع تمييز وما بات ما مميز لكي لينو يبقى وقت تمييز لا مميز ما تمييز وقيل am nañu ni déedéet faayilun mooy faayil fii qawlika nicma baax na maa yaqulul faadilu li aji li boroom ngëneel lay wax lu baax la am nañu ni maa mooy faayil am nañu ni déedéet tamyiz la nicma nëbb nëbb na damir muy faayilam du dëgg mel na da nga ni nicma baax na mu maa ci lëf lool muy tamyiz maa lëf lool yaquluhul faayil su ko defee maa nekk nakira tàmma di tamyiz ci di dëgg du dëgg aywa kon yaqulul faayil lu mu doon ci moom jumla ji naatam la du dëgg maa di tamyiz fa nicmaa hiya in tubdu sadaqaati fa nicmaa hiya nicma maa hiya moo doon cosaan su ko defee ñaari miim yi la ñu faf lidqaame min baabi lidqaamil kaamil lidqaamul kabir lañ ko tudde bu dee ci istilaahu ahlu tajwid al quran maanaam ahlu adaa il quran foofu la ñu tuddee lidqa baabu lidqaamil kabir mooy loo xam ne li sukkoonul tëngati ko ni ki jaala lakum am na ñuy jàng jaal lakum foofu mu ne de wallahu jaala lakum am na ñoo xam ne qiraa yoo xam ne bu doon moom jaal lakum la ñuy wax dañuy lidqaam loolu la ñuy wax nag lidqaamul kabir la ko ahlul qiraa tudde bi sa mastaraw bihi anfusahum maa moom bi sa bon na maa ci lëf di tamyiz